bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa guddik tey gi mooy guddik fukkeel ak ñeent ci koor gi ak naafilaam du juróom ñetti rakka muy ñeenti sëlmal rakka ba ne faatiha benn yoon isaa jaa nasrullaahi juróom-ñaari yoon ñeenti rakka juróom-ñetti rakka boog juróom-ñetti rakka raka bu ne fatiha benn yoon isa dia ñaari yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu